asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam man maa ngi tudd Adja Ndeye Maguette Thiam nekk parent détenu mais nekk conseiller municipal nekk bàjjanu ko mosuma présenter woon noonu mooy dinaa ko présenté wu tey ndax nit ñi ñëpp dañoo jàpp ni ñi ñi jàpp waa Pastef kese lañu man sama doom Pastef la bokk mais man taxawu Dakar laa bokk loolu daf ci jara leeral am na ay waa APR mais tey li ñu mën a sentir foofu mooy euh, Macky Sall dafa tas Sénégal ndax man sama xaaju famille man man maa nga dëkk Tiwaawan sama xaaju famille yëpp APR lañ ko sama xaaju fami yëpp mais bis ñàkk na leen depuis jour ba mu tëyee sama doom kaso sama doom lu mu def organiser anniversaire u Sonko ñu publier ko may jot ay menaces fu nekk sa doom bi dinañ ko arrêté dinañ ko lii dinañ ko laa man leen waa far moom kañ lañ ko doon bañ ci mim réew biñ koy jël si sama kër à 3 heures de euh, matin jàpp 4 heures de matin daaj gi sama kër kaw ak suuf ci jël si benn xale boo xam ne mu ngi juddu 97 yenn ko yóbbu mel ni ku def njombe boo xamante ni da nga yéemu ci àdduna ndax toroxal gor ci koo xam da nga ko jur fa nga ko war a juree yar ko fa nga ko war a yare tàggat ko fa doomu gor yi fañ tàggatee doomu gor yi mu metti torop ñuy dund lu metti ci loo xamante ni injustice kese la tegu loolu dafa jeex dafa war a doy sëkk bi ma ñëwee ci collectif bi bokk si fekk fi ay góor fekk fi ay yaaram fekk fi ñoo xam ñu gëm yàlla ñu bokk naqar di dund comme man li may dund boo ñëwee lépp loo nekkoon ci sa xol lu bari dina ci wàññeeku ñu ñëw ànd bokk ndey bokk baay mais boo demee ba gis profilu xale yi ñu wan la xale yi nga gis xale yi ak li ñu tuumaal xale yi sa àddina day tukki dama yaakaar ni nguur jarul yenn yi nguur jarul fekk ku sang doomam ba mu set jàngal ko alxuraan jàngal ko école jàngal ko àdduna nga ñëw naa ko yow terroriste nga wala nga naa ko xawma force spéciale yu kenn xam léegi nag tey yaa ngi bëgg a yaa ngi bëgg a ragg sa bopp dafay yomb na mu def ba tëj suñuy doom na def noonu ba génne leen ñun suñu yoon nekkul ci lu muy lu muy xalaat ak lu mu bëgg a def ay am na si moom la intéressé moom la ko moom moom loolu moom la intéressé moom ñun intéressé wuñu ñun suñuy doom ay gor lañu ay ay jaamukatu yàlla lañu ay liggéeykat lañu benn xale taxawaalu ci koo ci gis am na ci lu mu jàpp man sama doom moom a doon dimbali xale bu ndaw la mais billaahi wallaahi moom ma doon dimbali di dimbali papaam mu tey ñu ngi ko tëj ca kaso ba loolu dafa ñaaw dafa bon dafa war a jeex ci miim réew far mosu fee mën a ñàkk ana ñi nu rey waaw léegi ñoom xaa amuñu ndey ak baay léegi ëllëg après fulaas daldi xaddeen mu mujj fan léegi nag ëllëg si di kenn ñaan ko yàlla waa lu mel ni su amatee nit defati lu ko neex après indi beneen lu waa teg ni nañ def nangam après léegi nag ëllëg nag ñun ñu nekk bëgg a dee ci buumu njaam ñun ay gor lañu bu ñuy dund dañuy gore bu ñuy dee dañuy gore moom mi mani mani ba tëj suñu ay doom na mani mani ba génne leen doomi jàmbar yi nga xamante ni da leen a rey wala ak ku leen mënti rey mais ci ay manifestation lañu la seen bakkan dese loolu ala kulli xaalin faaw mu leer bu leerul tey leer suba ndax ay yaay leen jur boo juree sa doom li ngay xalaat ëllëg mu yor la ëllëg mu toppatoo la loolu kese ngay xaar waaye doo xaar tey mu dem génn fenn ñëw ñu boom ko wala ñu ñëw jël sa doom tëj ko sa kaso ba ay ati at ëllëg ñu génne ko ni ko yow defoo dara ana temps def ca kaso ba ana lim bàyyi ginnaawam man keroog biñ ne euh, prison ba dafa yëngatu man tam sama tension dafa wàcc dama feebar boobu ba tey kenn gisuma fii maa ngi doog a génn tey ci conférence de presse démb laa dégg sama doom démb laa koy doog dégg ndax dégg la xam naa la muy dund foofu chambre ba mu nekk chambre 3 la nekk chambre bu métti après nga déggati ñu ni sa doom gazé nañ ko après nga dégg ñu ni tiré nañ fa ay bal yàlla moo xam ndax ñun dugguñu fa waa léegi nga nekk yaay jur sa doom yar ko nga dégg loolu nan ngay réagir dafa metti dafa metti li ku ko waxul joxoñ ko dafa metti seetaankat yi ci biti nag dañoo am ay doom ñoom nu ñu yaree seeni doom ñun noonu lañ yare suñuy doom li ñu dal ñaanal luñ ko kenn mu dal kenn waaye mun na dal ku nekk ñun nag samedi incha allahu bi bu neexee yàlla suñu bakkan jaay nañ ko Macky Sall jaay nañ ko ko mm-hmm. suñu autorisé incha allahu bi dinañ mars suñu autorisé wul dinañu mars duñ ci góobe garbu suñu deewee ñun ay jullit lañu dañuy jàpp ni dañoo jee dee ci jihaad ndaxte nag gis nga nit ki am na foo xam boo fa tolloo dangay dem ci sa ngor ba mu jeex tàkk ñun xam nañ doom yi ñu jur moo tax mu jaral ñu lu nekk ci àdduna wasalaam maa ngi jéggalu bu wax bi dëgëree na xol bi mooy wax waaye du jëmm ji mooy wax maa ngi jéggalu. merci. salaamu wa rahmatullah maay nuyu ñëpp di ziar di leen nuyu yeen presque am nañ te lool seen jotaay fii ba ñu mën a génnee li nekk ci sunu xol parce que ñun njiitu réew mi di mag Sall daf ñoo tooñ tooñ sunuy doom jël sunuy doom tëj leen ci kaso bi boobu ba léegi mu yàgg lool metti lool ñii am nañ deux ans presque ci kaso bi ñii un an ñii un an ay neuf mois ca teguwul fenn ndax dañ leen a jaay doole téye leen injustice moo am ci réew mi ndax bu fekkoon ne dañuy doxal yoon rekk kaso bee suñuy doom duñ fa dugg ndax defuñu dara. suñuy doom dañ leen jur fi ñu leen war a juree yar leen ñu doon ay liggéeykat am ful la am fayda di liggéey di jaamu yàlla soxlawuñu alalu kenn kaso bee ñi ko meritoo ñu ngi ci réew mi di dox kenn téyewu leen ñi sàcc suñuy milliards ñi jël ay faux di ko def duga dugal ci dëkk bi ñu ngi fi ñi jël drogue diir bi di ko dugal ci dëkk bi ñu ngi fi ñu bàyyi ñoo ñiy circuler jàpp suñuy